mbokk yi ñu sifri ci Equivox TV maa ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen ñaanal ci jàmm di ko saxooti ci yéen leen wax ne tey nag maa ngi fi nga xam ne moom mooy arène nationale li tax ma ñëw fi nag parce que ku ne xam ne ne lamb ji ubbi na dèjà démarré na dimanche bii nu génn ak Jax production ca ca fa nga xam ne moom moo doon terrain gaal gi 2 millions 500 général Malika jël ko léegi nag ñu jëm si ci dëgmal mbir yi nar a gën a metti nar a gën a tar ku ne xam na ne le 27 bii nu jëm muy sam di fàllu Ndiaye moo teg fii. 4 millions ñu ne déet na waay bët set ga sëñ Modou Niang war a fee tëggaat lambi dóor muy loo xam ne kon saison bi fi mu nekk nii démarré na. di leen wax ne nag dañuy dem waxtaan ak Fallou léegi mu wax ñu moom lu mu nar pour samedi incha allahu rabbi ci 4 millions yi nga xam ne na teg na ko fii muy lambi mbapat ñu dem maar. mu mel ni kon yàgg maar ni ma la ko waxee woon rek li ma indi tey arène bi damaa ñëwoon di xool si arène bi comme ni ma ko fi ñoo xam ne da defe naa ñoom ñoo fi wala samedi la 4 wala samedi la 27. la 4 des na de 4 avril Eumeu Sène Lac de lii moom samedi lay am incha allahu rabbi 4 million ñeenti millions dafa naa kooku jar na bëre ma fekk fii waa Ndiaye production moo nga ne la taxaw Fallou El Capo am di Moustapha <laughs> kii moo gën a metti ci réew mi <laughs> ak metti <laughs> waaye yande ngi nii moom mooy kilifaay group bi Alaaji Yande Diop ah. maa lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Babacar. yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. tey su ma leen fekkee fi mu ne da def si woon visite ci arène bi yéen waa Ndiaye production am lu ngeen di waajal loo may wax lu xew. non fii dañu ñëwoon tey doxantu fi xool situation bi nan la fi demee lu doxantu ndànk pour le 27 parce que dafa am lu ñu préparé aussi fas yéene tegaat en même temps benn mise boo xam ne 6 millions lay doon ñu koy waaj dafa am rek fi mu ne lu ñuy ñam xam nga Gambie lañ jugee toj fa. ñu bëgg a ñëw fii toj fa fii nag après dañu bëgg def dañ ko bëgg a def rajax. mais kon yéen yéen mais man 4 laa dégg pour le 27 wala. le 27 4 mais dafa am lu ñuy préparer après le 10 6 millions ba 7 millions. parce que fi mu ne dañu bëgg rajaxe dañuy rajaxe moo ñu tax a jóg incha allah. Ndiaye production daal kon ren daa ñëw fas yéenee def nii rek. suñu suñu yaram dafa tàng fi mu ne. yaa lu ne seen ginnaaw ak lu ñu leen déey. non non xam nga képp koo gis nag sa àdduna muy dox am na ku nekk si ginnaawam. Ah. mais loolu amul importance lu am importance mooy liggéey. am jom fas yéene jàppale mbër yi xam ne si Sénégal lañ nekk Sénégal la ñu bokk te mbër yi yaakaaruñu ko dul promoteur yi looloo tax dañu mën nañ teg sax ba vingt. ba vingt millions jamono ji suñu yaram a teg ba vingt. maa ngi lay béggee waaw ñu ngi ñu bi boobu moom 4 millions confirmé mais li mu leen wax noonu bu doo ay caaxaan ay millions mais à tout moment mun nañ si yokk benn ba ñaar ba ñett ah, mu ngi dépendre ci le 27 bii bu ñu si jógee am na nu stade bi di men uh-huh. am na nu fi ambiance di men uh-huh. ñu yokk suñu loxo ci le 10 bi ñu dépassé 5 millions yi ñu teg noonu uh-huh. waaw ndax comme li ma waxee Gambie lañ jógee ñaata lañ fa tegoon 1 million 500 1 million 500 ci terrain lañ ko yóbbu woon de teg fa 1 million 500 esaat lañ ñëw plus de un an làmb amu fi dañoo bëgg mbo mbër yëpp dem wooree ak seen famille si jàmm li ñu leen tegal seen wërsëg la. suukaru koor ñu yóbbaale ko. amul ma dem te ñëw. ngala ah, ah bii mooy ah, ah, ngalax yi pak bu la diis bi mooy suukaru koor bi. Ndiaye dégg neex. le 27 bii moom mooy pak bi. na gars yi ñëw xëccoo ko ñu naani ngalax bu ñu demee naani ngalax 4 avril ba ñëw le 10 ñu ñëw à tout moment nañ fi teg 6 ba 7 ba 8 incha allah essence yi nag le 5 millions lañ lañ déclaré uh-huh. mais mën nañ teg 6 wala 7 wala 8 millions uh-huh. waaw loolu mu la wax te bu ñu bu ñu wooree ba ñëw mm-hmm. am nañ ay journée dinañ ko tëgg mais mbapat bi pareeguñu mbapat bi dañ siy bëgg wane suñu bopp comme ni ñu wanee suñu bopp ci lutte avec frappe bi dafa am fu ñu fekk mbapat mais am na fu ñu ko bëgg a yóbbu pour promoteur yëpp après ñëw ñu def mbapat bi comme ni ñu def lutte avec frappe bi ndax ci ci ji la bokk quoi waaw. mbapat tey nawetaanu làmb waykat bu mag ba woyoon na na ko yàlla yërëm papa Thion billaay moo mën la mu waxoon ca way wadu dañ yàgg maar man maa la ko wax nawetaanu làmb mbapat la waaye balaa nga koy xam arène ba tëgg mbër ya daw. waykat ya way ci ngay xam ne nawetaanu làmb dëgg mooy mbapat maa lay bëggee Fallou El Capo borom yére yu naay si yow moom fa mu defal la publicité la ngay jaayee neex mais nag solo la gooma na ah, na wax ji leer moor na leer naañ Fallou yaa may solol de Fallou incha allah leer na yaa may solol waaw leer na leer na maa na kon maa ngi lay nuyu di la ziar tamit yaa ngi ci biir staffu El Fallou Ndiaye bi waaw ñu ngi nuyu waa njaay production bi ñëpp di la nuyu Babacar di nuyu amateuru làmb yëpp. Mhm. di leen wax ni la 27 ñi ngi préparé lu doy waar. Mhm. tey dañoo doxantu woon ñëw ci stade bi nii rek di def visiter. di ñaan yàlla nag euh, ñu am ci réussite totale. réussite totale waaw incha allah ñu ngi koy ñaan bu baax. buñ ci jugee nag préparé le 10 incha allah waaw. waaw loolu daal fi mu ne mooy taxawaayu Ndiaye production. waaw mooy taxawaayu Ndiaye production pour actuellement nii léegi nag ñi ngi waaj yeneen yu gën a garaaw comme ñaar yii nii daal. waaw incha allah. am na solo ba tey Ndiaye production rek. ku ne xam na ne moor bu parcelle ñëpp a ngi koy dégg moor bu parcelle waaye sax dama naan léegi nekkatul moor bu parcelle ndax moor bu làmb ji la parce que li tax mooy yaakaar na ne bëri na promoteur yoo xam ne dinañ ko solliciter ci seen ay bés bokk na si Jamaïcain bokk na ci waa Vox Arena ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne ay promoteur lañ nekk ci Sénégal te loolu lépp xëy na li ko waral mooy jox bu mu jox gëdd làmb ak sonn bu mu ci nangoo sonn maa moor maa ngi lay béggee yow itam nga bokk ci ñu ngi lay nuyu waa di nuyu Stafou Ndiaye production bi yëpp waaw di lu bu baax tey visite bi ñu def si arène nationale bi ñëw pour xool si ban jumtukaay lañ war a jël samedi waaw looloo nu fi gën a indi mais ñu ngi lay ñu ngi rafetlu tamit Vox Arena seen liggéey ak Kewel Info bi nga xam ne yéen ñaara fi daje. waaw fekk nu si arène bi fas yéeneen jël ñu ngi rafetlu bu baax seen liggéey daal. Mhm. yow li ma lay laaj Gambie yaa nga foon foofu la ngeen fa def ñaari fan samedi ak dimanche mu nekkoon lambu doy waar ma gis laa ma ja débordé woon bañ yeggoon ci ne sax dana tas mais yàlla dogal mu yegg si jàmm seen secret lan la. waaw xam nga Babacar staffu Ndiaye production suñ taxawee pour def événement la dañ koy def parce que tamit euh, ñi ko wër ay nitu làmb lan xam secret làmb moo tax euh, ba ñu demee Gambie gis euh, première journée bi ñu bàyyi ko Gambien gis fa ay faayu ndaw deuxième jour bi ñu jël suñuy responsabilité ànd ak ñoom gunge leen ba ñoom ñu xamal nu carrément ki yéen yéen ñu gën a xam li lan moo tax premier jour defoo leen nii ça veut dire ne li ñuy def ñun xam nañ ko maîtriser nañ ko muy làmb ji te incha allah samedi ku fi ñëw dina xam ne Ndiaye production lépp lu mu organiser événement lay ne waaw ñu ngi si woon ak amateuru làmb yëpp waaw ñëpp monde beeg ñëpp ku képp kuy dund làmb daal ñu ngi lay woo le 27 bii muy samedi ah, si mise u 4 millions waaw di si woo mbër yëpp di leen woo tamit si fair play parce que tamit mën nañ ne arène nationale bii mooy première journée buy am làmb depuis Covid ba mu fi duggee ak léegi moo fi première journée ñuy woo ñëpp si discipline ñëw seetaan si jàmm ah, Momo Ngom Mbaye ak Loum animé toj làmb ji ñooñ ku leen xam dio de soog la ñoom ñoo xew waaw loolu rek ah, ñoom danoo yor seen public bopp waaw di woo amateur yëpp waaw di. woo ñoom Doudou Diagne Diecko comme am di nu muy waxee mooy président di woo tamit waa Jeunes Amateurs. mooy président des amateur rek Mor bu fi indi benn problème. Doudou Diagne mooy président des amateurs. Gora Ndoye le président des. Jeunes Amateurs ak groupe baax ak Doudou ak Amal Daak ñëpp c'est des amateurs. est-ce que yaa ngi dégg Doudou Diagne moom la yàlla def mooy kilifa gi loolu du problème. amul muskila Mor. waaw waaw ñun yëpp ay sénégalais la. dëgg la Babacar tax ñun ñu ngi woo. yow suñu waay nga. non ñun ñu amateuru yëpp la ñuy woo. parce que tamit organiser yombul. te ku organiser ku ne su sañoon day am réussite ñun réussite la ñu ñaan si journée bi. Mhm. moo tax képp kuy amateuru làmb ñu ngi lay woo groupe baax jeune amateur du amal Amalda. Euh, authentique ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo di woo tamit responsable écrit yi parce que tamit ñooñu dañuy dund ay làmb muy ares ñu ngi leen di woo bu baax si journée bi seen président di Malick ñi ngi ñooñu ñu chaque instant ñu ngi dugal publicité njaay production bi seen panel bi waaw ñu ngi leen si woo bu baax di si woo képp kuy amateuru lamb ñu ngi lay woo samedi si mise u 4 millions yi daal. jaajëf kookoy moor borom PA a ah, man dama da da li ma ko li ma wax a nekk di maanaam boo déggee tey sax ma ma du jaañ moom parce que li am lenn la. Fallou Ndiaye defe naa ne wala waa Ndiaye production ña fa ne du ñu ay dof laa foog bu ñu xëyee tëgg mis bu toll nii ne dañ ciy delloo Doudou Diagne njukkal tudde ko ko drapeau bi yaakaar naa yàgg maar la ko waral olof a koy wax ku bindoo ne tama faw ñu tëgg la ñaari boor Doudou Diagne Diecko daa yàgg ci làmb wax dëgg yàlla loolu la yàlla dogal di ci sonn di ci sonn ba yegg si fii defe naa tey lu ko nit delloo njukkal ci làmb rek yooyu lu ko ëpp jeunes yi nga xam ne tamit ñoo nekk ci suuf muy groupe baax ak jeune amateur ak amal daak jeune yàlla ñoom ñëpp ñu atteindre niveau bi Doudou Diagne jekkoon nekk parce que tamit àddina noonu lay demee kenn du fi nekk éternellement Matar ana waa Lamsaar waaw Babacar waa Lamsaar a ngi fi ñu ngi si jàmm ñu ngi si jàmm ñu ngi sant yàlla naka yëngu yi ah ñu ngi ci kawam ñu ngi daw rek ñu ngi daw yow yaa manager général lu Ndiaye production mhm. tey ngeen waajal le 27 4 mhm. millions mhm. loolu tamit ak bii di ubbi nii loolu xanaa seen yaram daa tàng non xama yarami tàng na wala tàngul mais faalu sonn nañu ñun amatuñu nelaw guddee ba bëccëg mbëri yi nga xam ne matuñu sax 60 kilos kenn maytu la jàmm ñëpp a yaakaar dañuy lekk si millions yi te xam ñu millions yi ñi ci lekk daanaka dopp ñeent non kenn nelawatul guddi nelaw ba bëccëg <laughs> bàyyi leen na ñëpp ñëw rek non ku a bindu boo ñëwal kon non sérieux si am nañ problème de ndax millions yi moom bu bare nii ah. xale olof yi fi mu dugg si na ci combat yi ñu bëri séeréer séeréer naqari doole de. non naqari ñuy dund lambi simple de. mais bul ni général bu Malika nag bokkul de te temps mooy def. waaw bokkul waaye boo xoolee li di li ñuy dund actuellement. waaw loolu lay dund moo tax it xam daal millions yi ni mu commencé bare nii. Ah. te Ndiaye am yeneen ak yeneen yu may dégg. Ah. ba ci saison dégg naa sax ba ay vingt cinq millions. waaw non dama ragal est ce manager yi duñ mujj wuti licence Fallou Ndiaye nar bu continuer yéen mën naa lutte fra avec frappe bi di pexe. non damay ragal que avec frappe moom la yàlla xam doy na ñoom lii nar nii non su ko nee dama yaakaar ne ñu rey lutte avec frappe mais loolu yëpp sant yàlla la ndax comme ci làmb rek moo leen tax a jóg CNG déjà dafa am ñaari branche muy ëpp na sax ñaar mais liñ ci gën a ràññee fii ci Sénégal li ñu pratiqué mooy lutte fra avec frappe ak lutte sans frappe ni mu président du CNG dafa am koo xam ni moom la ñuy jox mbirum lutte avec frappe bi muy Bira Sène comme niñ jëlee Manga 2 jox ko euh, lutte simple bi donc ñaari branche yooyu lañ fi gën a suivre am na ay olympique ay yeneen ak yeneen mais fii daal lii mooy li nga xam ne moom lañ fi pratiquer mm-hmm. te wax dëgg neex yàlla promoteur moom boo ko xasee ba nekk rek du da war a mise ci frappe rek ndax bëri bëri la mm-hmm. am na ñoo xam ni xëy na bëri doore leen neex mais am na ñoo xam ne bëri simple dong nga mën a yàq seen nelaw waaw kon Ndiaye bu ñëwee ŋarale nekk ci fële surtout nag ba ràññee fa ràññee fa ba jàpp naa ne am na ay at teg yi sax ñu koy woowee numéro un kon si yàlla dogalee tey mu ñëwaat ci bëre simple bi ah te ni mu débuté nii nag hmm. damaa ragal ni dafa nar a nekk numéro un ci lu simple bi waaw ndax ni mu ñëwee am na doole te xam naa ne des na yeneen date maa ngi dégg mu wax ay le dix yeneen te yooyu it xam naa ne toujours day gën a yokk cere doole ñeex mise yi day gën a kawe waaw kon nag ñuy woo rek yi nag nañ ñëw waaw nañ ñëw jàpp ci nag hmm. amateur yi ñëw amateur lutte avec frappe ak sans frappe hmm. comme lutte avec frappe bi gars yi dañoo tàmm di ñaxtu ay 4 gaaw ak yooyu fii moom da ngay seetaan bay nelaw ah non nañ ñëw nag di assister lutte sans frappe bi comme ni ñu koy assister avec frappe bi loolu am na solo tey nag Ndiaye dafa ñëw ak Ndiaye production jël ay moyen ànd ak ci ay partenaire ak ay parrains yoo xam ne dañ ci fas yéene jàpp ñuy ñaanal nag première journée bi mu nekk réussite euh, du jaan jekko du jaan jekko nekk na ko sonna ci làmb ku sonal waa làmb damay gis day dox jéego yu bare ci même nit làmb ku ci am problème feneen wala yeneen ndax damay gis ba taay donte man nag moom jëflante wuñ ci yu bare mais damay hmm. di gis yàgg gis muy dimbale ay nit di sonn ci làmb kon kooku mérité na lu ne ci làmb kon boobu nag amateur yëpp war nañu ñëw wuyu si ko wuyu si ko massivement ñu feesal stade bi del del ambiance dina am moom dina neex dina yëngu. Fallou maa ngi lay nuyu di la jaar yow tamit di la ñaanal jàmm di ko saako ci yow di wax na tey fekk naa la fii ak sa staff ngeen nekk ci biir arène bi di xool seen organisation pour le 27. waaw Babacar dañuy am mbégte ci bi ñu dalal fi tey mm-hmm. tey ji dañoo ñëwoon pour visiter bi. comme yaakaar naa biñ ñu fi yéeg def na at bu teg kon yaakaar naa buñ ñu fi waree tëgg samedi nga xam ne ñun ñoo bi saison bi fii ñu ñëw pour def xool nan la ñuy defee événement bi ñu fi war def ci eh, nuyoo bi ne dañ ciy jiital suñu mag Alaaji Yande Diop nga xam ne suñu mag la suñu frère la taxawu fu ne taxawuñu fu ne mm-hmm. di nuyu tamit Matar comme ni ñu ko waxee moom suñu mag la suñu xarit la suñu lépp la mm-hmm. di nuyu Modou Parcelle nga xam ne tey jii moom mooy coordonnateur bu Ndiaye production lépp luñ ciy reef moom moo ci jiite di coordonné di nuyu Fallou El nga xam te ni tey moom mën nañ ne lépp njaay production moom la ndax tey buñ àggee fii jàpp nañ ne bàyyi na ci waar bu rëy ndax fàllu dafa bokk ci ñun ba pare gëm ko ba pare gëm ñu ah. te loolu moo am solo ñu nit ñu gëm ko lool mm-hmm. di nuyu am di Moustapha xam nga am di Moustapha moom su ma waxee dèjà da ngay ree ndax am di ñëpp la sonal <laughs> <laughs> déggoo léegi yaa ne naan ko di nga jëy euh, bekk su ko dugg ci ndox <laughs> nga xam ne am lu ne la sañ moom it vraiment bi mu ñëwee ci Ndiaye production léegi yokkute rek la <laughs> am solo sax ah, ah. mu nekk ndaw nekk jeune ah, boo xamante ne nag mën naa ànd ak ku ne ndax wa vraiment ñu dañ koo soxla Babacar ñun ñoo soxla am di am di soxlaa ñu de ñun ñoo ko soxla ndax am di dafa am ay qualité yu ne ci moom yoo xam ne dañ koo soxla muy nit koo xam te ni boo gisee da ngay jàpp ne ku arrogant la ku tàng la ku bari histoire <laughs> mais melul noonu <laughs> day aduna addunaam yëpp mbalak la kaforee vraiment di ko ziar bi mu ñëwee ci Ndiaye production gis nga yokkute bi gis nuyu di nuyu Moustapha Mbengue ñoom ku ne xam na ne Moustapha Mbengue ak ñoom Malick yëpp ñu ngi leen nuyu ndax euh, yaakaar naa bu ñu leen nuyoo rek mën nuyu tamit yàgg maar di nuyu waa Kewel Info yëpp bàyyi ñu kenn di la nuyu Babacar di wax ne comme niñ comme ni nga ko wax rek dañoo war a def misu 4 millions rabbi fii samedi misu mhm. 4 millions nag boo ko war a def euh, gis jamono yi passé li xewoon ci làmb ji kon tey bu fekkee da a tëgg am na disposition yoo xam ne uh-huh. uh-huh. dina uh-huh. ñëw pour xool disposition stade bi nan la demee nan lañ ko mën a defee noo xamante ni tey bu amateur yi ñëwee seen xol dina sedd mooy dinañ fexe saisi nañ ko fexe mu set ndax gis nga gars yi commencé nañ nettoyé bi ñu ngi liggéey bi pour saisi set wecc ba nga xam ne ni képp ku ñëw loo neex sol su la neexee def sa jeesneer bu weex tàll ñëw ah, toog doo am benn problème mm-hmm. directeur baa ngi ci gis nañ gars yi commencé nañ ko waaye ñu ngi ci liggéey bi am nañ yaakaar suba liggéey bi yëpp na pare mm-hmm. kon am nañ yàqin ne mm-hmm. incha allahu rabbi képp ku fi ñëw ci amateur doo fa am loon a xari di nga gis làmb di nga gis baak di nga gis lépp loo xam ne ni mu ngi aajo ci lu simple ndax nag fu mbayong lum di ñëw moom moo ngoom ne fa naa moom ci luy baax la rek amul ben roq bu sedd fépp foo ne koy yëg fépp foo ne nga koy yëg kon ñu ngi jox amateurs yi rendez-vous samedi incha allah le 27 ñu nekk rendez-vous bu am solo nag la ndax dinañ fa wanewaat lu gara lu doy waar Babacar am na yeneen innovation yoo xam ne war nañ ko cee def incha allah rabbi ta ca bis boobu lay nekk. li ma lay laaj léegi fallu lu simple yàgg nga ciy dëgg des fois mais lan moo tax nga bëgg a yokk sa niveau ci côté teg yi ngay teg mise yi parce que 4 millions lañ dégg ñu ngi déggaat le 10 ay 5 ak 6 millions. Mhm. nañ fi sax ba ay 20 millions plus de mhm. lu xew lan moo tax. Uh-huh. waaw Babacar boo gisee loolu rek àdduna moom ku ku ku yokku da ngaa wàññi te ñun fi ñu toll ci làmb jàpp naa ne nag wax dëgg yàlla nag dootuñu toogu fenn ñu naan ana kuy fàllu ci làmb ndax yaakaar naa bu dee lutte frappe bi ñu nekkoon wane nañ suñ bopp ba soxlaatuñu luñ ci wan ndax jàpp naa amatu luñ ciy prouvé ndax lépp luñ ci war a def def nañ ko ci jàppale nañ ci askan bi bu baax jàppale ci mbëri ndaw yi bu baax a baax ba ñëpp gis seen bopp kon tey bu ñëwee ci lutte avec frappe ci lutte simple uh, gis mise yi fi mu toll ñu ne dañ ko weer lancé ñu ne bëreet ñu ñëw Sénégal ne dañuy def cinq euh, deux mille quatre millions pour bëgg yok yokk làmb la rek Babacar ñu jógee fa ñu ne dañuy la dix incha allahu rabbi avril ñu ne def cinq millions dégg nga ni comme ni Moustapha waxee am di daa rek mais mën naa dem ba dix millions am Babacar le dix boobu mën naa dem ba dix millions nga xam dañ koy dañ koy dañ koy kii rek non dañ koy dañ koy harmoniser rek comme le dix la ñu def dix waaw le dix dix millions c'est-à-dire loolu lépp mën na nekk mais li am solo mooy ñu laaj ama ñu xaar amateurs yi ñu ñëw jàpp ci bis bi ndax dañoo soxla amateurs yi ñëw ci bis bi bégal ñu le 10 incha allahu rabbi ñu gën leen a bégal mhm. mooy ñu defal leen mise boo xamante ne au lieu que 5 millions mën nañu ko ba 10 millions mhm. pour lépp rek satisfaire amateurs yi pour bégal leen mhm. ndax nag bul fàtte ne mois de juillet incha allahu rabbi dañoo bëgg a teg mise bu am solo te mise boobu comme ni ko am li waxee yaa ne gaa ko mën naa dem ba 20 ba 25 suñu bébét mooy 25 millions pour ndax ñun toujours dañuy bëgg an innovation di def loo xam te ne mësul am ci làmb loolu mais Fallou est-ce bu ngeen ci continuer làmb yi ji du ngeen ko rey non duñ ko ndax dèjà avec li bi ñu ngi ci dèjà ni am nañ trois journées yoo xam ne ñu ngi ko waa def ku xam ne Belende ba Ibrahim journée la boo xam ne ñu ngi ko waa def du yàgg dara ku xam ne euh, Magar sek mooy doom euh, booy Niang 2 ak doomu Jalaaw mu ngi ñuy dëgmal Papa Boy Djiné ba bis mu ngi ñuy dëggal Mor Kankang ak ki nga xam te ni mooy caatu yëmbal ñu ngi koy dëgmal mm. Tafa Mbër Ada Fass ñu ngi koy dëgmal kon yaakaar naa combat yooyu ku ko yoor di ko dëgmal yàqu dara ci li simple bi dañuy yokk cere rek doolu ñeex dañ ciy foo gaay rek kese mais léegi du jànjek ko mi nga jël tey delloo ko njukkal ci bés boobu tudde ko pare ne ko bésu la la vingt sept bi lu tax du jànjee ko waaw du jànjee ko comme ni nga ko waxee démb ci télé bi rek du jaañ euh, <laughs> bi ñuy daje maa moom mm. dafa am benn lamb boo xam te ni damaa ñëw ne presse bi vraiment kenn du dugg waaw ñu tëj porte yëpp benn presse duggul yaakaar naa ñaari presse ñoo duggoon ci lamb jooju comme moom mu ngi woon ci làmb ba pare nekkoon président amateur mu woo ma ne ma mais Fallou yow lu tax làmb ji nga ne benn Siteu dugg ma ne ko non mais làmb dafa dañ ko war a defar dañ ko war a segg togg ko ba nga xamante ne nii vraiment dinañ ko harmoniser noo xamante ne nii képp ku ci ñëw di ci am mbégte di nga am satisfaction mais nag Babacar démb bi ñuy waxtaan maak sama benn xarit boo xam ne nii journaliste la mu ngi may xamal ne cent vingt cinq site internet gars yi bind nañ ko yoo xamante ne nii ci làmb ji lañ nekk. ne ci réew mi te bokkut ak yeneen sites yi imaginez cent vingt cinq sites internet kenn mënu koo lijjanti di lancer appel Babacar accréditation mooy dugal nit ci làmb ji ñu nekk muy la vingt sept bi képp koo xam ne ne jotoo accréditation xamal ne làmb ji bokkoo ci waaw képp koo xam ne war nañ laa jox accréditation nag dañ la ko jox te buñ fàttali nag ñun dañoo déplacé fu dem Gambie ànd ak équipe ànd ak ay journalistes yoo xam ne dañoo ñëw pour accompagner Ndiaye Production pour jàppale ko kon te jàpp naa ne bu ñu jox agitation tamit ñooñu lañ koy jox ndax baaka ñun suñu wax duñ ko nëbbu dañuy wax liñ gëm wax li ñuy def ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon Gambie ñoom lañ jox agitation pour mu ñëw buñ ci yokk yaakaar naa ñaar lay nekk wala benn ndax am na ñoom ne suñu ay partenaire lañ mënuñu bañ a liggéey ak ñoom ak fu mu mën di dem buñ ñëwee buñ ñëwut mais daal li ma wóor mooy agitation yi du ma diis loolu moom leer na ma kon nag nañu xam ne ñun fii soxlaa ñu fi cambal cambal soxlaa ñu fi ay désordre ndax lamb dañ ko war defar sans nangam sit moom mm. non pas de question du dugg ci lamb ji loolu moom xalaatuñ ko sa bokkul sax suñu ay programme te it noonu lañ koy déroulé ba suñu lamb jeex ñun ñuy liggéeyee dañ koy teg ay anam yoo xamante ni yaakaar naa ku ñu comprendre mën nga cee bañ am ak ñun problème mm-hmm. lamb ji nag yaatu na ku ne mën ngaa yem ci ji la neex filmer mais ñun suñu lamb dañ koy organiser am nuñ koy doxalee liñ koy doxalee nag ku bëgg fekk sa kër amul mais daal duñ nangu amateur yi ñëw dagg seen ay billets sañse ba jeeg ñu naan leen micro ba leen téye caméra ba leen téye journaliste ba moo leen kale mënuñoo seetaan loolu moom duñ ko nangul kenn Babacar dinañ ko organiser ba nga xam ne ñi jox accréditation sax bu ñu ñëwee nañ leen teg euh, disposition yoo xam ne nii amateur yi bu ñu ñëwee nañ maa seetaan ci si ñibbi ci jàmm ndax amateur na mooy roi yi c'est le amateur mooy roi mooy daggati kay ñëw seetaan kon waruñoo bàyyi leen lu koy xañ pour mën gis li nekk biir géew bi foofu rek lañ ko teg mais teguñu ko feneen di lancer war appel Babacar di woo ñëpp samedi yàggatul dinañ fi gis incha allahu rabbi lu doy waar ndax yaakaar naa fi mu toll nii moom comme ni ko Matar Ndiaye waxee man mii sama téléphone bi day toj. nu muy demee nu muy demee nu muy demee may leen non lool moom da ngay dem si CNG comme moo yor licence yi ñooy bind nañu dem côté boobu ñun suñ côté mooy nañ fexe organisation yi dinañ ko tey a def actuellement ma lay wax ak yow mise bi CNG jot na ci depuis démb. Ah, jox nga leen 4 millions ndax tamit booy yëngu ci mbir da a jël say matuwaay. ba duñ la ca woo naan la andil ndax tey ñun ñoo jël initiative nu dañuy teg 4 millions kon waruñoo xaar sax CNG du ñu woo duñu laaj 4 millions 4 millions yi ni muy demee tamit nag mooy 3 euh, millions 600 yi la mbër yi moom 400 mille CNG moo ko moom mooy frais d'organisation yi dañoo bëgg mu leer ci ñëpp leer ci CNG bi leer ci mbër yi nga xam ne ñoo koy bëree ndax mën nañoo dégg 4 millions rek mbër yi jàpp ne 4 millions yëpp wax day leer 4 millions yi 3 millions 600 yi moo jëm ci mbër yi 400 mille yi mooy frais d'organisation CNG CNG ko yor comme CNG mooy seen affaire bi en tout cas 4 millions yi moom dugg na ñun moom instant yi xam nga xaar mbër ubbi porte yi gars yi ñëw jaay ticket mais ñun moom pare nañ Babacar sa sa pare yi foofu laay tëjee ak yow muy Moustapha muy Moustapha Mbengue maire Kër Massar. Mhm. du Diagne Diecko ak Benzeloum ñooñu tamit defe naa am na appel boo leen war a lancé. waaw non ñooñu samay nit la ñu comme euh, ni ma la ko waxee ci du Diagne du Diagne suñu mag la suñu xarit la suñu lépp la comme ni ko président Gora Ndoye nekkee ndax Gora Ndoye suñu mag la suñu xarit la suñu lépp la moom ñoom ñëpp benn lañu c'est-à-dire comme euh, mënta ñaa lu mënta ñàkk làmb noonu la ñii dañuy aw nii ñii aw nii ñi mën a rek ànd mais ñoom ñëpp ay nit ñu baax lañ ay nit ñu séré lañ ay nit ñu gëm làmb bëgg ko lañ kon yaakaar naa ñu ngi woo Jeune Amateur ñëpp bàyyi kenn di woo Doudou Diagne Diécko ak kuréelam ñëpp moom mi mooy boom bis bi ñu ngi koy woo ak ay nitam comme ni mu ko waxee Moustapha Mbengue maire ko Massa mooy suñu maire dañ koy woo di ko sargal ci bis bi moom it ku mel ni Ben Saloum dañ koy woo ku mel ni Michael Fora ñoom ñëpp dañuy sargal ci bis bi ndax ñooñu suñu ay xarit lañ yoo xamante ne ni Babacar dañuy séqi loo xamante ne sax du sax làmm kon tey ñooñu mënuñu leen a bañ a sant mënuñu leen a gërëm comme ni ko am ni Moustapha di waxee ku mel ni Modou Baye Fall xel ko automobile ndax moom suñu frère la ndax xaritu moor suñu xarit la suñu frère la di ko ñaanal xel ko automobile balaay déwén yal na sut ci réew mi ci li nga xam ne mooy def wàllu oto ak location loolu lañ koy ñaanal ndax moom suñu xarit la suñu frère la di ñaanal ñëpp Babacar di wax ne daal Babacar rendez-vous bi samedi la incha allahu rabbi mm. dina neex dina yëngu. dina neex dina yëngu incha allah. Fallou kontaan naa ci yow. ñoo gën a kontaan. yàlla na yàlla def jàmm. merci dégg ngeen li Fallou wax dég ngeen li staffu Ndiaye production wax defe naa wax ji am xel mën na koo déglu ndax tege na ci aw yoon te te yaakaar naa tege na ci ab yaar ak i teggin defe naa tamit lancé nañ appel defe naa kon le 27 daal di samedi na amateur yëpp waaj mbayang lum moom yaakaar na li may wax rek mbayang ci stade moom moo mu wër ko loolu tuq su bën la saañ ba réer fii nag lañ koy fëree ci biir géew bële ngay seen yàgg maar du mën ñàkk ku man sa moroom fee nga ko koy wane muy nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp fu ñu mën a nekk si àddina bi waaye fàllu ña depuis Maroc du ma ko fàtte